Euh, dinañ ci am ndam waaye dañu gis ni foofu euh, dañu passé à côté complètement indaat nañ nag deuxième tour boo xam ni dañu bëgg nag wàññi ci li nga xam ne du yàggatul dara daanaka waxtaane nañ ko ba ci njiitu réew mi jotoon nag ci wax muy wàllum location yi mais El Hadj Pape est-ce que jamono gi dina yomb en tant que locataire yi ak borom kër yi moment yi ndax tout le temps da nga doon gis El Hadj bu ñu demoon euh, ba toll ci dimension bu demee nii dinañ accepté ñoom borom kër yi mais bu ñu demee à un moment donné ñu dañuy soxla suñu kër yi daanaka nangam nangam wala dama ko soxla boo génnee ñu mën a yokkaat wala dellu ñu nekkoon tout le temps ñoom ak locataires yi El solution ba léegi euh, du am est-ce que cette fois-ci nii euh, yoon bi dina nekk loo xamante ni lu régulier lay nag waaye tamit dina nekk dina am suivi. waaw mais mu Mountakha il faut qu'on y mette du sérieux maa ngi interpellé état du Sénégal nañu sérieux ci seeni décision nañu sérieux ci lu ñuy def parce que gis nga aussi dis la vérité. mu tax dañu sérieux c'est-à-dire loo bëgg a wax. waaw xam yaa maanaam y a du manque de sérieux dans ce pays y du manque de sérieux parce que man jàpp naa ne en tant que une état yàlla dénk le pouvoir ñu ne yow yaa war a gérer vraiment le pays créer stabilité état waruloo wax peuple bi di opposé ak état ci li mu wax bien vrai que ne état aussi. c'est-à-dire que les propriétaires mhm. des maisons mhm. am na ci ñoo xamante ne bi aussi dañu leboon ci banque bi ay millions bien sûr pour mën a tabax seeni i kër mais dama wax ne la l'État c'est le garant de nos sécurités mhm. l'État moom moo moom moo war a euh, détenir aussi le dernier mot appartient à l'État du Sénégal man ma jàpp ne aussi am na yenn euh, décision yoo xam ne su état demee ba koy jël war nañu ànd ay mesures d'accompagnement yoo xam ne képp koo xamante ne bi en réalité respecté woo euh, euh, ordre yi nga xam ne état joxe na ko. mais ñu teg ay sanctions yu sévères. d'accord mais El Hadj Ba tamit est-ce que tamit moom la wax ni est-ce que li ki war yëpp. dajale li nga xamante ne mooy euh, euh, ñi nga xam ne ñoo ŋànk ci wàllum euh, wàllum location mm-hmm. ba ci dem sax ba ci courtier yi sax war nañu mën a toog ak ñoom mm-hmm. ñi nga xamante ni rek agence yi mm-hmm. agence ci boppam war mën a toog ak ñoom El Hadj Pape est que waxtaan bi war pour trouver benn solution boo xamante ni dëgg-dëgg ëllëg yi amoon dootul amaat ndax bee passé dañoo passé à côté nag parce que nag dañuy bañaat tamit lii tamit ñëwaat mu nekk defet seen kaw waaw gis nga suñu ndaxa passé à côté boobu moo dul yoon ci état bu normal moo yoon ci état bu sérieux parce que état bi moo dem ba xam ne Paris boo demee Paris euh, mooy capital de la France Paris. waaw seen location ak location Sénégal benn la est-ce que sax Sénégal gënul cher Paris ay location parce que léegi da ngay ñëw Pikine man Pikine gis naa fa appartement boo xam ne cent 200000 francs la te ba jamonoy baax.

Euh, euh, yàq ceeb bu ñorul. cookoor lay indi. maanaam loo bëgg a wax foofu. maanaam togg bi ñuy togg affaire bi. dafa ñorul. dafa ñorul xam nga ñàkk a ñor gi mooy. tey état waroon na wax ne dem gis ay bailleur toog ak ñoom. waxtaan ak ñoom waa ji wax la ne la man kat doon naa verser euh, banque tey li ngeen wax bañuma ko. mais nag ci ban ci ban maanaam faisabilité bi. d'accord lan la état di jàppale propriétaire bi. lan la état di accompagner propriétaire bi. Mhm. ba nga xamante ne bii dette bi mu amoon au niveau de la banque. Mhm. état dina ko mën a dina ko mën a euh, dina ko mën a alléger ba nga xamante ne bii paiement bi dootul métti ci borom kër gi. su boobaa aussi borom kër gi dina am xel mu dal. Mhm. xam ne kat man sama état wu réew soutenir nañu ma jàppale nañ ma kon jaadu na man en tant que citoyen sénégalais nag. ma obéir ci ordre yi nga xamante ne bi état bi euh, joxe na ko. donc man jàpp ne tamit di interpeller waat état. ci propriétaires yi gis nga sëñ Mountakha dama ne est-ce que Macky Sall yëg na véritablement coût yu élevé yu catastrophe yi am ci ci ci ci locataires yi. ça coûte excessivement cher. mais mais mais mais sëñ Mountakha Sénégal Sénégal dama wax ne la xoolal euh, location. moo fi gën a cher gis jama. Ah, vous voyez donc nag borom kër yi sonn nañu. am na ci loo xamante ne bii aussi locataires yi ñoom ñoo war a xam ne wax dëgg neex yàlla am na ci loo xam ne bu ko état tege yow locataire bi am na loo xam ne yaa ko war a bañ bañ gi mooy bul nangu di dugg ci kër jàmbur weer dee ngay fay à glet mooy sëñ mu taxa luyee nga ma sa chambre wala sa euh, appartement wala nga suuluwee ma bon weer dee ma fay la lii rek anyway mhm. amul benn traçabilité bu koy wane loolu maa ngi wax ne locataires yi nañ ko moytu nañ koy sóoraale mhm. kër boo fa demee di fo luye borom kër ga na lay jox reçu de paiement nga xam ne kat weer bi fay nga. bi fay nga bi ci des fay nga. d' accord mais El Hadj Pape tamit loolu loolu loolu beneen beneen beneen côté la bu xaw a xóot parce que am ni xëy na jànguñu. waaw xëy na jànguñu amaana wala xamuñu sax euh, euh, maanaam euh, loi location maanaam rôle bi nga xamante ni moo koy joué ñoom xamuñu ci dara. te mu nekk loo xam ne lu sew sew la El te xam naa dinañ ubbiwaat yeneen parenthèse parce que a waxtaan yaatu na ci wàllum location ndax cette fois ci quel que soit alpha sa nga ci yaakaar que ni mbir mi dina dina jaar ci yoon. waaw am naa ci yaakaar dans la mesure où l'état du Sénégal joxe na benn numéro vert mais numéro vert bi li ci gën a am solo moom laay wax suñu Mountakha. muy lan El Hadj Pape day am këram. luye la yow musuñu am jafe-jafe Mountakha. boo boolee am problème de. nga may fay régulièrement. waaw si may dégg état bi ne donc wàññi nañu euh, loyer bi mm-hmm. yow yaa ngi ma doon fay peut-être supposons appartement bi cent mille. Mm-hmm. xam nga deux chambres salon ma jékki-jékki ne la Mountakha may naa la deux mois damay réfectionné waat kër gi dama koy peinturaat damay damay ah fekk na li may wax dara du ci dëgg nga génn ma jël location bi yóbbu ko cent cinquante mille francs donc waaw ñooñu laay wax ma ne mhm. état bu leen gisee na leen teg ay sanctions yu sévères parce que dafa nekkul dëgg dafa nekkul yoon nga génne on locateur bu sérieux parce que tout simplement yaa ngi wut say intérêt crypto personnel mm-hmm. au détriment euh, euh, euh, du locataire loolu laa wax ne la état bu ko gisee nañu nañu nañu nañu leen nañu leen nañu leen nañu leen yoolee gis nga ñooñu mm-hmm. dañ leen a war a indexé jël numéro vert wax ne kat El Hadj Pape Thiam propriétaire la mm-hmm. waaye génne na locataire yi ba yokk na Euh, euh, location bi su boobaa aussi na état jël ay man am naa yaakaar ni cette fois-ci mhm. dina wute ak bu njëkk ba ak surtout caution yeeg yu demee ne ak tukki yooyu daal merci beneen bi rek noonu tam surtout tamit ci wàllu caution yi noonu dafa am solo sax de surtout ci wàllu caution yi mais léegi gars yi dañuy dem bay laaj caution 4 mois ñii di trois mois ñu ne kat courtier bi moom moom moom benn weer bi xam nga loolu tamit loolu mbirum caaxaan la ko nañu organiser réew mi réew mi dafa bëri ay fokat dafa bëri ay caaxaankat te loolu ah vraiment day sonal ki nga xamante ne bii moom mooy loca bi nga xamante ne bii Serigne Mountakha salaire am yeegul cent mille ah, nga luyee ko kër goo xamante ne bii cent cinquante mille francs la locataire bi war a fay courant war a fay ndox locataire bi war a fay ay jàng doomam war a dundal ay doomam ah, ay doomam di feebar mu war leen a mën a faj man mii di wax ak yow mm-hmm. man duma locataire ah mm-hmm. duma locataire mais dama gis coono yi locataire yi di daj. dafa metti ba ci kanamu yàlla. donc nag nekkul ne man luyewu ma rek waaw sama yoon newu ci non non réew mi warul demee noonu réew mi dañ ko war organiser teg ko ci dëgg teg ko ci njub. loolu mooy réalité bi et puis euh, état bi aussi vraiment. Euh, ces démembrements ñi muy jël pour ñuy surveiller loolu ñooñu tamit nañu nekk nit ñu jub. dimbale état aussi. waaw nañu nekk nit ñu jub parce que tamit dem ci locataire mu ger la pour la nga ne ko noo garaawul loolu moo war a jeex Sénégal waxu ma ne nag ñu ngi koy def dama ne. ci réew mi la ñu nekk te ñun dañu xam réalité yu Sénégal mm-hmm. nañu éviter loolu te yërëm locataires yi sonn nañ jërëjëf vraiment Pape looy tàggatoo yaakaar naa ni bég nañu waaye yaakaar naa dinañ gën a ubbi yeneen parenthèse ci côté euh, location bi tamit ah. euh, surtout locataires yeeg euh, bailleurs yi war nañ ci waxtaan gën koo yaatal waaw xam nga tàggatoo bi rek mm-hmm. mooy man li may wax sénégalais yi souvent que nit da ngay déglu wala nga xool ku lay jëmale kanam mm-hmm, man day laa wax man dama jàpp ne benn télé moo am Sénégal. Mhm. télé YouTube. benn télé benn télé laa jàpp ne moo am Sénégal yi ci des. waaw du ñu ay télé. télé dëgg dëgg dëgg. ku ko bëgg a xool jàppal jàmm ji info. <laughs> xam nga lu tax parce que njëriñul Sénégal ngay wax. Mhm, mhm. parce que luy jariñ peuple bi ngay wax yow doo topp ay buzz toppoo li xew ci jamono doo xool guignol yeeg. ñu yow li intérêt Sénégal moom la jàmm ji info di xool donc maa ngi inter maa ngi interpeller la jeunesse mm-hmm. su ngeen bëggee am vraiment éducation de base bu am solo di leen suivre jàmm ji info jërëjëf jërëjëf El Pape chroniqueur El Hadj Pape analyste politique ñu ko santaat bu baax yaakaar naa ci disponibilité bi yaakaar naa ni Euh, fi nga jógee sori na trop mais jaaroo sax sa kër directement da nga def jàmm ji info dama ne euh, le nouveau des de de de jàmm ji info tabarkaal ñu di ko santaat nag franchement ndax gis nañ taxawaayam saa su ne euh, bu réew mi soxla bu actualité da nga gis mu xar ci tànk tubbayam xaaru ci dërëm xaaru ci ñaar dërëm wax dëgg du ñu def lu ñaanal ko aussi di ko ñaanal yàlla suñu borom gën ko taxawu vraiment ci yéeneem gi nga xamante ne rek am na ko rek saa su ne rek ci soxlay jaam yi boo gisee muy dem jaru nga koy laaj soxlay jaamu yàlla yi rek kon El Hadj Pape ñu ngi lay sant bu baax sa disponibilité itam di nuyu ci wàllu éclairage bi caméra bi itam euh, di ci santaat bu baax euh, sëriñ Fallou Fall tabaarkàlla ci taxawaay bu am solo bi lee ci wàllu présentation bi micro bi Mouhamadou Lamine Mountakha di nuyu boole bi équipe technique nag bu jàmm ji info mbokk yi di leen jox dig daje seen jotaay noo ko jàngate la woon ba beneen yoon jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans